muy tawfeex ju rëy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 إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله حبل فندري بأهل بدر الأسود كدري نفى لغير الله فندكار كل أجلي جره مكار علمني الرحمن في السفينة bi annani xadimu silmadina barraani llahu lada kunaadiri min kulli janibin ilal manakiri azabaani llahu fika ambasam xablu mubarisi wa anni xalbasam daani arrahim hinda التسامي يسر للمنى لدى البروني من قال لي ما غاب عن كل ولي لي غاد أهل بدر الأسودا من زهزه الواشية والحسودا يقول لي حيث أكون الله bashira la ilaha illa allah saqa li xayri allah fi ma yumba ma saa qalbiya wa ahla janba lillahi qad wasaltu inda qalba wasalani amma yadurru albalwa kitaabati qablu لدى البحور كفت حياتي هي المدحور waaye ñun suñu xel dafa dal ndax dafa mel ni sëñ Cheikh Khadim léegi lañ toog ak euh, sëñ Njaga mu wax ñu loo xam ni loolu yoon la ñu yóbbu ko Sénégal mooy ni ngay taxawoo doomu aadama yi fii ci ñi dem ba yàgg fii xamu ni mënatunoo dem sax yaa ngi leen di recenser doon ay mag di leen delloo ci réew ma marché lakk na fii boo xam ni ña fa lakkale ëpp na nga xool sénégalais yi te li ma ci gën a neex dañ ne xeet yëpp a fa ne waaye benn senegal ñoo am ambassadeur bu ñëw taxaw ay doomam foofu jëlaat ay koppar jox leen massawu leen ko te nag nit dara mën na koo dal nga ne ko massa sax mu xaw a sedd loolu nga def yooyu nag war nañ koo yóbbu li may def bàyyi sëñ Cheikh Mbeng mu présenté la délégation bi xam ne dañoo ñëw ñu ànd kilifa yi jóge ci sëriñ bi. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi eh, sëñ Omar Thiaw ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bu ànd ak ndax liggéey boo xam ne dañ ko doon def fii te sëñ Touba tax ñu di ko def te sëñ tubaa ki ko fi toogal di sëñ Mountakha Mbacké yeble fi bu ko defee kon liggéey boobee tamit ñu am ci euh, wax dëgg yàlla ay ndam yu yaatoo yaatoo yaatoo yoo xam ne leen li bu gan yi ñibbee sax dañuy dellu si fii ngir jottale ko bu baax a baax a baax boobu waaw waaye ñu wax ni rek euh, sëñ Mountakha yeble na fi ci njiitul kam fi yebal mooy sëñ Bassirou Mbacké di rakk sëñ Koso mi nga xam nga xam ne saa yu ñëwoon daan na ñëw fekk si la fii yow it yebal nga sa cabinet yëpp ñu teeru leen dalal leen ànd ak ñun ba yàlla dogal na liggéey boobu dem nañ maa Mayumba ba dellu si waat yañ doon séentoo jot yëpp muy ay suuf yoo xam ne waa réew mi digga woon nañ ko ngir luy mandargaal mbirum sëñ Touba yooyee jot nañ ko ba teg ci ay xeer ànd ko ak it sa euh, cabinet bi nga xam ne yabaloon nga leen fa la ñu def lépp ñu ànd ko xam naa ne dinañ ñoom dinañ indaale ñoomit ay information délégation bii nag nga xam ne sëriñ basiru Mbacke moo ko jiite moom sëñ Mountakha mi ngi dend ak euh, Cheikh Mamadou Mbacke moom sëñ Moussa Bassirou sëñ Moussa Bassirou mooy magi sëñ Mountakha bu ko defee mu doon rakkam dend tamit ak sëñ Fallou Mbacke mu xaadimaatu xidma moom mooy ñi nga xam ne ñoo yor jumaa yi Touba ji di ko taxaw moom it ñu yebal ko fi mu ñëw fi sëñ Cheikh naa sa moom euh, daanaka moom buñ ko présenté wul it moom ñu <laughs> moom moom maam Assa ñoo ci bokk wàccuwaay ñu def naa ñëw nañ fa ay yoonu yoon di tëral liggéey bi ak di ko di ko waxtaane ba mu agsi fii waaye nag mi sëñ Moussa bu somee moom it ànd ak ñoom ñëw ci liggéey bi nga xam ni moom ca Sénégal bokk na ci ñi ñuy jàppale ci Touba bu baax a baax ci ab taxaw ndax àggale nañ ko ci sëñ muy sëñ Mountakha waaye sëñ Mountakha dañu nañ ko yaatal ci mbooleem ñi buntu kër yi sëñ Touba yi loolu nag moom lañ doon def ca Sénégal yaatal ko bu baax ñoom sëñ Moussa Bousso sëñ Cheikhouna ak ñi nga xam ni nekkoon nañ Touba ñëpp sëñ baay Dame Mbaye moom it di sëtub Maam Mor Borom Saam mooy magi xaari Xaadimu Rasuul kon bu yàlla dogalee moom it mu doon ab professeur boo xam ne dañ koo séentoo mu ñëw taxaw ci ay waxtaan ndax xam nga barrière la ngeen si moom dana tax sax li nga xam bëgg koo jottali du mën a joti ca ña nga xam ne ñoom nga ko bëgg a ndax li ngeen di wax mën naa am du ngeen déggante wala soo leen waxeet mën naa bañ a leer ci moom moo tax andi nañu ak professeur boo xam ni day wax langue yu bari day wax anglais di wax français defe naa bu ñu ngeen mën a comme yaa ngi doon interpréter maam Asta loolu dina waaye mooy professeur Baye Dame Mbaye Euh, kii nag it abi bu defe naa moom jotoon na la fi muy sëñ Habibou doon doon ancien euh, ministre conseiller ci gouvernement bu Abdoulaye Wade mu dend nag ak Baye bu Bousso mi nga xam ni moom it ci délégation bi bokk jóge Sénégal waaye nag tey li tax man la xam naa ni dina nekk malaleel sax di toog ci ay banc sëñ Cheikh Khadim Fall surtout maam Cheikh Fall te ñun ay Baye Fall lañ euh, maanaam mën naa wax ni ñoom bu ñu génne woon dëkk benn ñun ñu dem waaw bu ko defee nag kon bu bu ñëwee kon tey mel na ni suñu moral gën naa dooli ko maanaam mënoon nañu jëf lu baax sax ñu ne ñu ku leen ko jëfloo ndax damay nettali rek mel ni mbir mu yéeme ndax moom mii maamam ci ñi sëñ Tuubaa yar la mu ne ci biir kër sëñ waaye boo xamee sëñ bi mosoon na ko jot ne ko moo taal foo bawoo mu ne ci sëñ mu ne ko ay eh, waaye ndaw yow mii nekk sama sëriñ ba nga xam ni maanaam moom daanaka rek bu demee ba ak njabootam àgg ci mën a nekk fa sëñ ba sax loolee sax dinañ cee ñee mu am benn jamono boo xam ni maanaam moom sëñ bi da ko woo ni ko moo taal de dama laa bëgg a yónni ci sa baay ndax dafa yónnee ndaw wane ni aw moom dafa sutaate mu bëgg ma defal ko ak ñaan mu ni ko ñëwal ma wutalal la ak ñaan nga jox ko ba jaa mu ko ba ko sax demal ba mu demee ba mu àggee daa dugg ci bi xool maam Cheikh xool ko rek mu wér ni ko wax na dëgg ñaan sa bët yi la ko def dama laa xool rek wér moom moom mooy maama moom moom mi sëñ Abdou Khadim sëñ Mor Talla ko meññi su ko defee bu fi ñëwee maam maam Aliou moom xam naa ni moom it mooy rek maam Assa di doomi sëñ Fallou Boussa waaw ñeneen ñi ci des nag mooy cabinet bi nga xam ñoo ànd liggéey ci caravane bi ñi ñëw ak ñi ñëwul waaye sëñ Badara ma nga ne defe naa lu ci bari moo koy indi ak ak chaleur moom lool <laughs> tàng jër <laughs> ak ak ak defe naa sëñ Cheikh Diagne sëñ Kaalam tamit mi ngi woon Sénégal waaye nag ak presse sénégalais Mame Mor Mbaye de Touba TV mi ngi nii taxaw doon présenté waaye sëñ Xaarim sekk mi nga xam ne nag ba ñu tàmbalee ba tey ci volonté boppam moyen boppam lay ñëwee fii dinu nu accompagner Mayomba di di ko monter di ko jàllale waaye nag sëñ Moutala Gaye jël relève bu yaatoo yaatu ca année bale weesu ba bii moom tamit di ci liggéey liggéey bu yaatu kon daal mel na ni euh, tawfeex ngi noonu ci dëkk bii nag ñu ànd feek benn doyen may sa caam nga xam ne moom defe naa ni moom ñun duñ la ko présenté ndax ñun ñii moonu dalal ci dëkk bi fekk ñu fi sëñ bu Bousso mii nga xam ni tamit mooy mooy euh, initiateur projet bi moo may samay dëkk nañ 15 ans ci genn kër bu ko defee nag kon lii daal moom mooy li fi am waaye kàddu gi kaddu ñii fi teew la ak ñi bokk ci liggéey bi te ne Sénégal ñenn ñi xañ na dañuy xam ni barab bi day xat waaye ak ñu ne ci dëkk bii tamit te bokk ci liggéey bi kon daal xam naa dañuy delloo kàddu gi Cheikh Bassirou Mbacké di ko xam ne daal sëñ Bass kii ku ñu taxaw la ndax ñun ay ndongo ngay mi fi ñëw. xañ na xam-xam beeg yu ci bari manqué na waaye lettres yi àgg ci autorité réew mi ak autorité Sénégal daf ñoo wax ni ñu lépp lu lu ngeen ci bëgg a jàllale na ngeen ko indi fii lépp lu ñu def tamit su nuroo njuum te mënuñu jaare leen nii ba ñu agsi mu doon nag ni tukk fédérateur jàmm jooju nga doon dox ci dëkk bi dem moom moo jiitu ci dox jàmm nee na bu sañoon sénégalais yi ne ci dëkk bi yëpp dañu nekk ci benn ndax moom looloo koy noppal ndax moom àndut ak kenn woon keneen ka ca des waaye liggéey sëñ Tuubaa bu màgg bii nga xam ne moom gis na ko ci dëkk bi nee na xam na ni ci jàmm àndandoo doon benn ci la mën a jëriñu ñëpp yemul sax ci communauté mouride waaye ju lislaami Sénégal gépp tey nag moom fi mu joti ñun joti joti fa ndax excellence Mamadou Régis Onanga Mamadou Ndiaye ba mu doonee ambassadeur dan ñëw fii di ko seet si di ko laaj ci liggéey bi nuy def am na ci yoon woo xam ne bi mu ko recevoir ba mu noppi pétition gii lañu ñu recevoir booba ambassadeur la ni man damaa ñëwoon seeti naa seen ambassadeur jéem naa xam ndax li ngeen di dox lu ngeen am ndigal la wala lu lu ñu autorisé la waaye dem naa nag ba gis ni li ngeen def lu tegu ci njub la ndax am ngeen kayiti réew mi am ngeen récépissé te it seen ambassade xam na li ngeen def te yéen yéen a ngeen ndigalu sëñ bi kon nag man fas yéene nag ànd ak yéen di leen liggéeyal loolee bi mu delloo Sénégal ànd naa ñoom sëñ Seexuna ba dem ci sëñ Muntaxa siyaare ji mu jox ko nag ay kii yu bari ay benn yu bari ay jox ko ay kado maanaam ba mu dellusee ñetti weer lañ ci teg wala ñeent ñoom ñu jël nguur gi moom mu yokk ñu def ko ñu def ko ministre affaires étrangères ba tey ji visa yi ñu doon def dani ni ma leen ni ma ko mën a defaree ca Gabon ni laa leen ko mën a defaree fii ndax ba léegi joxeeguma ambassade bi man maa maa maa ko yoree ba tey kon kon loolu dafa mel ni waaye yow mii dañuy ñaan nag ñun ci di ko wax sëñ bi mu àgg sëñ Muntaxa ne ci barab ba jàng nga fa loolu mënut a ñàkk waaye yow boo fi jógee na nga dem fu ko gën a kawe ba ba ba nga doon jàppale nga man ñoo jàppale fu ko gën a kawe wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu euh, lay nuyu bu baax monsieur l'ambassadeur euh, di am mbégte euh, liggéey bi nga xam ne dañu ñëw fii tey àndi ko ak sëñ Bassir Mbacke moom sëñ taxa def ñu fekk sax ñu nekkoon bitim réew waaye li ñu fi indi nekkul leen lu dul siyaare indi sunu xam-xam ci wàll gi man jam ñaajo man maa def schéma d'urbanisme yi ba tax na xëy na xel goo xam ne mën na jëm ci wàllu liggéey mën naa ko jox addiya borom tubaa ndax lu ma am rek sëñ Tuubaa tax li ma nekkoon conseiller financier président Ablaye waa it pendant dix ans tax na ba xëy na ay yoon yoo xam ne mën na indi xaalis mën neen ko mën dajale ndax yoon wi soxla na ko ndax liggéey suñ Tuubaa gii kat mooy liggéey gi nga xam ne moo gën a mag lépp loo xam ne am neen ko ci ci xam-xam képp koo xam ne sénégalais rek war nga ko jël mobiliser ko pour mën ko indi yow nag bii du yoon bi ñu mës a gisante walla bu ñu wax téléphone lépp nag sa njàmbaar sa baax waaye nag sëñ tubaay tànn sëñ tubaa bu la tànnee ba jiital fii ba liggéey loolu ak fi nga jaar rek ñii fi nekk suñu xel day dal te ni ko jëwriñ seen Cheikh Mbengue waxee rek xam naa lii ñëw a dàq sëñ Muntaxa moom yemut ak kenn wax dëgg yàlla njabootam it noonu day sant bu baax te la gërëm des siyaar ah, kilifa gi ñu ngi lay siyaar bu baax man li ma ciy wax du bari li nga def nii dafa rafet lool te nit boo gisee xar kanamam rek da xam ne nit ku baax la ndax loolu laa wax si si yow léegi ñun suñ saali woon yar xam nga xam doomu aadama nag dañ dañ ca dañ ca dañ ku jaar ci loxom jël nga ci kon nag ñu ngi lay siyaar jox sa wàccuwaay te xam ne nga def nii lu rafet ndax fii bi ma fi mujjee 2016 xam nga 2014 toog naa fii ak ki fi nekkoon ambassadeur fii yaa naa jigéen la woon sax bañ toogee di waxtaan mu ne ma yéen ñi nga xam ni ay kilifa ngeen dañ leen a war a fonk ñun ñi nga xam ñoo nekk ci réew yi nekkal fi euh, senegal parce que yéen seen mission ak suñu mission ñun ñoo bokk ndax yéen bu ngeen ñëwee ci réew mi da ngeen dajal taalib yi dajal Sénégalais yi di leen digal ak di ak di wax nañ góorgóorlu ci li réew mi euh, liy dox ci réew mi daana ñun ñi tamit loolu dong mën ko bàyyi car loolu mu wax fii moo tax lii nga def nii lu rafet la ndax ñun suñu mission ci réew mi muy suñ ñi kilifa yu mag yeeg ba ci ñun ñi ñëpp seen mission du lu dul soññi taalibe yi digal leen lu baax tere leen lu bon te yaakaar naa loolu moo leen fi bàyyi yéen kon nag lii nga def lu rafet la loolu rek laa ci doon sànni ñu ngi lay ñaanal bu baax taxawaay yi nga xam ne dégg nañ ko di ko taxaw ci njaboot gi yàlla gën la cee dooleel dooleel bu baax ñu ngi lay sant baax di la gërëm jërëjëf. Euh, kilifa yi nag te wax nañu daanaka euh, quelques paroles, puisque la parole m'est permise. Euh, je m'excuse, ma voix est cassée, j'ai pris un peu froid à Mayumba. <laughs> Mais c'est l'occasion surtout pour nous de, de réitérer nos remerciements. Euh, pour nous en tant que communauté ici, pour nous en tant que comité qui organisons la caravane de Mayumba, pour lesquels les efforts que vous avez déployés ont toujours été très engagés. et peu importe euh, le moment auquel on, on, vient vers vous ou la justesse des délais, votre porte nous est toujours ouverte. Et nous vous en remercions chaudement, en sachant que votre coopération a bien sûr impacté grandement euh, l'évolution et, et, la, et augmenté à l'envergure de l'événement, en facilitant nos échanges avec l'administration autant locale qu'au niveau du Sénégal. et nous ne saurions euh, vous en remercier et nous en réjouir euh, parce que nous savons tous que si nous sommes aujourd'hui partie prenante de ce projet, euh, c'est par la grâce de Dieu et je pense que tous les acteurs qui prennent, euh, qui prennent place dans, dans l'équipe qui permet li li ñu naan ci wolof ne sëñ bi sëñ bi mooy tànnal boppam donc ñu ñu sant euh, yàlla bu baax Euh, li nga bokkee ci ñun <laughs> li nga bokkee ci ñun euh, di sant nag kilifa yi fi yi fi ànd ak ñun ci seen yaatuwaay ak seen taxawaay euh, autant sur le plan de la représentation pour qui ils sont venus que ce soit pour le Cheikh notre khalife général Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, que pour les descendants de Mame Cheikh Ibra Fall qui sont venus avec nous et, et pour et l'honneur qu'ils nous ont fait de pouvoir poser la première pierre sur le, la terre qui nous a été donnée euh, à Mayumba pour construire la mosquée. Donc je pense que c'est autant de, de, de symbolique euh, aussi pour le, pour l'événement et le parce que ce projet n'est pas n'est pas un travail, je pense que c'est une mission Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un sacerdoce. Donc nous, nous sommes, nous, honorés de pouvoir être partie prenante de, de ce projet. Donc je n'ai pas besoin de me faire longue. Je pense que euh, l'essentiel a déjà été dit, mais je ne pouvais pas prendre la parole sans commencer d'abord par des remerciements, chaleureusement. Et puis maintenant que euh, le projet prend l'envergure qu'on voulait à cette, à cette étape précise, je pense que c'est seulement le début maintenant du gros du travail. Et, euh, et nous comptons bien sûr sur votre appui, euh, sur vos conseils et sur votre engagement qui est toujours aussi, euh, fervent. bu njëkk bi mooy mere naa la ndax ba nga ñëwee ca salle ba def naa fa discours en français boo xam ne yow rek laa bëggoon nga fekk ko waaye nag dañ la ko yónnee te ñu ngi waajal def ko document boo xam dañu ko traduire ci langue yëpp incha allah. ngir xamle kan mooy sëriñ bi ñaareel bi mooy sentiment ñee lu tax mën a ñee nit mën naa nekk kilifa te du mën a jiite leadership lu nit di incarné la kon day mel na yow xam nga liñ bokk nga ànd ci ak ñun ndax wax dëgg yàlla kilifa yëpp day nañ ne ma ne ma na xam ne ñëpp nga koy ñaanal ci suñu làmmiñ waaye suñu xol a ëpp. te sëñ Modou Lo Dagana dadaa wax ne xol bu seet doy nag ñaan waaye man li ma lay informer rek mooy xam ne yaa ma ko gën a xam année bi caravane bi jël na beneen dimension scientifique xam nga culture murit dañuy fees dell te doo leen dégg boroomi diplôme ngi ci jataay bi yu bari loolu pour wax la ne déwén yëf dana gën a ba jël beneen dimension international te boobaa sa ndam rek lay nekk li ñu ñaan daal mooy say dara ji gën a yokk te nga xam ne am na ñooy jëflanteel ñoo xam ne nii yéene nañ la ko te buñ sañoon sa ndam rek lay nekk di ndamu Sénégal te ni ma koy faral di waxee coopération bi xëy na au niveau culturel la waaye war na koo mën a dépasser dem ci yeneen domaine te incha allah buñ ci liggéeyee danga nga ko xam ñu ni danañ ko xam kon daal ñu ngi lay ñaanal di kontaan lool ci jàppale bi wax dëgg yàlla rafet na lool te jub na jërëjëf. mu tombeek màggalu sëñ Sa tey jii ñu fekk fii mi ngi tombeek màggalu sëñ Mbàkke Buso ñu koy màggal ca tuubaa ak Gédéeg fépp sëñ Mbàkke Buso nag la sëñ Touba dénkoon diine ji Baay Omar Buso mi xalifa bi mooma ni yonent bee ñëw ak ahlu badrin ne dañ lay dénk diine. nee na ba ahlu badrin tàggoos yonent bi ne sëñ bi dama laa soxla diina ji nag am naa ci xalaat mu ne ko loo ma ci xalaatal mu ne ko dénk ko Mbàkke su kon yow ñu dénk la ndénkaanu senegal yi fii kon noo ngi ñaan ci darajay kookee di sëriñ Mbàkke Buso sa mission yàlla na àgg ak jàmm euh, kàddu yi moom kàddu yi cant rek lay doon wax naa ko sëñ Basiru Mbàkke léegi afa ñu ñëw ci say taxawaayu yu rafet ci réew mi ci Sénégal yi rawaat na ci caravane bi karwaan bépp ñu ngi lay amal cant ci lépp loo xam ne soxla nañ ko waxtu wu nekk gis nañ ni sa yitte ak say jéego yor fay yoo ci def liggéey bi nag liggéeyub seen Tuubaa la waaye liggéeyub jullit ñépp la ndax man projet bi ñetti mbir la te ñetti mbir yooyu yëpp moo moo taxaw taxawaayu islaam mooy taxawal jumaa joo xam ne dañ ci mën a joxe waxtu suñu borom yi waaye na mu am daara te ku tudd daara tudd defar nit defar nit moo am solo te Sëriñ Tuubaa mission moo doon defar doomu aadama mu xam boroomam waaye mu nekk nit koo xam ne dana mën a jariñ boppam mën a jariñ réewam mën a jariñ société bépp te loolu euh, yaakaar naa seen ndimbal yéen nga xam ne da ngeen dox loolu bëgg nañ ci procès bi incha allah rabbi même gabon yi nga xam ne ñu ngi fi sax ñuy góor góorlu ba mission bi Sëriñ Tuubaa doon jàllale ñu taxaw temm ci wéye loolu bañ bañ jéem a sax tàbbi ci islaam nga xam ne dootuñu soxla sax ab sénégalais di ñëw di leen waaye ay gabon ci boppam lañ bëgg ñu nekk fii di woote ci diina ji di di tasaare njàngale mi pour message bi gën a mën a jàll loolu mooy yéene euh, procès bi te jàpp naa loolu mooy seen mission te kon nag boo taxawee sa taxawaay bi di ci jàpp euh, di di ko di ko di ko jëmmal dana ci sant di la ñaanal yàlla suñu borom dafa la ci euh, tawféex bu baax a baax te ndam li ñu ci am rek nga am ko lu ko ëpp di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah di jox sëñ bi kàddu gi di wax ne man joxe woon naa sama ngànt ngir jël kàddu ndax kàddu genn rek te li mat wax lépp ñu wax wax nañ ko te nun murit nin baaxoo dafa mel ni mooy seen baax fii ñu fi nekk ñëpp yow seen kilifa soo xasee ba jël kàddu wax rek doy na ñun itam ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Basir teewal fi sëriñ bi su jëlee kàddu wax doy na te ñëpp daan ko rafetlu ànd nañ ci alhamdulilah li ma bëggoon a wax lépp wax nañ man benn kàddu rek laa am boo xam ne ci yow la jëm mooy bëgg nga jàllaleel nu message message bi mooy autorité yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi nga xam ne si réew nga fi toogalal nga jàllaleel nu message ci ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi la fi teg nga jàllaleel nu message ci ñoom ak message bi jëm ci ñi nga xam ne. te nga ne fi yow tey di Sénégal mooy suñu kilifa yooyu su lii ñëwatee ñu leen mbir bi ñor ñu am ci taxawaay gunge waa Caravane am na lu bari lu mën a biral Sénégal ci ak yëkkatiku loo xam ne loolu ci kanam la ma su ko wax sax ci biir waaye jëriñ lu rëy nga jàllaleel message ci autorité yi réew mi ñu xam ne di ñoom. buñ ci taxawee ci njaal bi mën naa metti ci ñoom waaye mën naa dem ba ni nit ñi di bàyyi ko fu nekk ci àdduna di ñëw Touba di màggal si di dem feneen fees di di di di ziar di dem Rome di ziar yi lu ëpp loolu mbaa lu ñu toll mën nay jóg di ñëw fii te loolu defe naa mën naa indi lu baree baree baree bare ci koom jën ci réew mi mën naa indi ci jaxasoo loolu laa bëggoon man sama xalaat nga dox ci jéego gu nit ñi sant nañ la gërëm nañ la wax nañ la li nga war a taxawoo nit ñi taxawoo nga leen noonu alhamdulilah loolu nag li ci des doon mission boo xam ne da koy dox moom. diggante ànd ak waa bi ñëpp ak ak gan ñi ñu àndal di la nuyu la sargal bu baax ci taxawaay bii nga xam ne taxaw nga ko muy jàpp gi nga. jàppale waa karawaat bi ci liggéey bi xam nañ ko bu baax sëñ Cheikh naa mi ma koy wax bi ñëw rek ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci liggéey bi ak yéen ji nga xam ne am nga ko ci loolu tam ñu koy bàyyi xel bu baax a baax bu loolu jàllee itam sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk taxawaay bi ngay taxaw ci ñoom itam yëg nañ ko rafetlu ko bu baax la xam ne kilifa yi itam ku mel ne sëñ Muntaxa ak kilifa yi Sénégal yëpp itam loolu ñu ngi la ciy sant ndax seen bëgg-bëgg la ndax njaboot gi seenu njaboot lañ kon fuñ mën a nekk rek ku leen taxaw mel na ne ñoom nga ko defal kon ñu ngi ñu ngi la ci sant bu baax a baax am nañ mbégte bu baax a baax tam ci ñëw gi ñëw fii ci ambassade bi tey ndax buñ fi ñëwoon ba dem ci ñëwuñu fi kon dana jàpp ne am na lu manqué ci yoon wi <laughs> kon ñu ngi koy kon kon kon am nañ ci mbégte ñu fi ñëwee rawat na bi ñëwee nga yaatal la ñu nii ni nga ñu teeroo loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ah li ñu fi indi nag ba tey muy sëriñ bi rek sëriñ Touba bi nga xamee ne ah, ñëw na Gabon wax ne yassara naa la daal libal wali man xaadali maa xaaba an kulli wali ñëw gi fi ñëw ca suñ boroom jox ko fi lu joxul kenn loolu yëpp ay fir firnde la ci muy relation yi ngay wax nii nga xam ne relation diggante Gabon ak senegal ca lu ci bare bare bare bari bari murid yi am ci seen seen part bu yaatoo yaatu kon loolu loolu rek loolu loolu day feeñ bu baax a baax ci liggéeyub sëriñ bi ndax ah, ah, mbokki taalibe bi fi nekk yëpp dajale seen bëgg-bëgg waaye seen bëgg-bëgg dëgg la am na leen fi yëkkati lu leen fi andi waaye bi ñëwee day mel li li li seen yitte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy maanaam sàmm jeexital yi fi sëriñ bi bàyyi muy bare barkeelu muy euh, yar bi nga xam ne sëriñ bi jëmbat na ko ci mbokki taalibe yi muy yar bi nga xam ne moom la yar moom la lislaam wax rek maanaam euh, ñëw ànd ak waa réew mi ci jàmm li nga xam ne moo yëkkati woon sëriñ bi ci euh, taxoon mu ñëw mu mu mu ñëw fi ñoom it ñu ciy dox seen wàll ba nëgë ni maanaam mooy ànd do ànd akub yar dox doxin wu rafet ba nga xam ne waa réew mi sax dañ koy roy ñoom kon loolu itam ñu jàpp ne loolu ba tey ci liggéey bi sëriñ bi la bokk ca loolu it yaakaar naa gis nga ci lu bare bari ndax euh, bu demewutoon noonu da nga mel na dañ la lëjal ci lu bare bari da dégg ñuy wax ne ah gaa yi def nañ fee nangam def nañ nàngam waaye mel na ne li ñuy def lépp itam ñu ngi ko ci ci yoon rek lañ ko teg loolu la ko waral mooy kilifa yi fi jaaroon nekkoon fi njëkk fee nekk xàll aw yoon woo xam ne yoon woo ba nëgë ni mooy dox ca mel na day gën a jëm kanam rek loolu ñu ciy fàttali bu baax sëñ Fallou Bousso mi nga xam ne moo doon kilifa ñi moo doonoon wayjuru sëñ si ak soxna Maam Asta muy doxin wu rafet woo xam ne doxin woo ba nëgë ni daal alhamdulilah ñu ngi koy rafetlu di ko dalal xel ah, di la gën a dénk mbooloo mi tam ci ci ci ci ci ci ci noonu rek xam le ne bu ñu fi nekkee ay nit Sénégal lañ ci yàlla dogal na yow yaa fi nekk yaa fi nekkal kilifa yi kilifa yi kilifa yi àdduna yaa fi nekkal kilifa yi kon yaa fi nekkal ñëpp kon loolu ñu kon loolu mission boobu la yàlla teg ca ca nga ci ca nga nga nga matale ko sëkk ñu ngi koy rafetlu di la ci sant bu baax la ci ñaanal suñ borom yokk laa dimbale ba li nga xam ne mooy sa yéene di yéene président suñ borom àggale ko ci réew mi waaw ñu ngi sant ñëpp nag du ñu guddal kon foofu rek lañ ko yemale ñaan ñu def ko air yu bare bare bare nag excellence xam naa ni ñun presse bi mais ci biir jotaay bi rek ginnaaw bi nga dégloo kàddu kilifa yi sa jàngat loolu nag ñu ko ci dugalal ban booy tëj ban message ngay jox taalibe yi fii rawatina sénégalais yi bañ mun di ko jariñoo ak li lay noppal ak li lay yombalal sab liggéey loolu dañ koy soxla ndax loolu jotaay la laajoon da nga koy jégglu ginnaaw jërëjëf merci balaa ma yegg ci loolu xanaa delluwaat di sant di gërëm kilifa yi xam ne vraiment coono bu ñu daj ci yoon bi yëpp euh, wante mu xat-xat fexe nañu ba ñëw fii euh, ci jiital donc sëñ Bassirou ak sëñ euh, Khadim Fall Cheikh Khadim Fall donc di leen sant di gërëm ñëpp tamit ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal euh, vraiment ñun mënuñoo sax sunu mbégte <laughs> mënuñu ko natt dëgg fa yàlla donc mais lépp tamit jëm ci. vraiment ci fierté bi nga xam ni ñun am nañ ko ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii parce que léegi nii sëñ bi loolu la mujjee di wax ni euh, liggéey bi nga xam ne aussi ak tànk yi nga xam ne moom la ñuy dox aussi euh, pour gën a dëgëral ñun suñu taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw vis-à-vis de sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii par de la même caravane bi par de la même euh, yoonu murid loolu aussi mooy message bi nga xam ni kilifa diine yi nga xam ne dañuy ñëw fii yëpp jóge Sénégal loolu mooy message bu ñuy boole ñu tamit ñu am ci vraiment mbégte ak cawarte di ko def ndaxte euh, sëñ bi xaw na ko junj léegi mooy euh, man lu bëri vraiment suma liggéey dañ ma ko yombal te li ci ëpp kilifa yi nga xam ne kilifa diine yi nekk fii ñoom ñoo ma ko yombal bu ma ñëwee fii ba léegi ça va feex faire quatre ans mais benn benn jafe-jafe aw ma euh, sama collaborateurs yi colonel ak euh, Ndiaga ñi ngi fi mën nañ ko seede euh, relation yi nga xam ni am nañ ko ni moom laa am ax ñëpp ñu nekk ñu baax lu si ëpp ci ay problème mu sénégalais bu dul yegg si fii mais kilifa diine yi ñoom ñoo tax ndax yenn yu bëri parfois dina xew ba jàll man ma koy doog a te loolu aussi vraiment dama leen ciy sant. ndax seen baax la amul lenn loo xam ni dama leen koy soxlaal ñu xaw ci yeex wal parfois même balaa même nga koy kii nañ ko lijjanti ba donc ñoom aussi vraiment ñu ñu amal euh, ñu leen di sant ñu leen di gërëm euh, di wax ni aussi euh, caravane bi am na ku ko wax léegi donc par delà li nga xam ni dafay firndeel jaar-jaaru sëñ Touba fii ci Gabon dafa nekk Euh, événement boo xam ne dafa am ay dimension yu bëri wax naa léegi la dimension culturelle bu nga xam ne dafay entre ñun ci suñu liggéey muy coopération parce que coopération wax naa ko dafa multiforme am na coopération politique diplomatique économique euh, culturelle xëy na ci culturel bi lañuy ñuy commencé mais euh, ñëpp xam nañ ni dimension yeneen yi aussi dañ koy jël en ndaxte muy euh, politique bi politique nekkul lu dul topp li nga xam ni société bi ñoom loolu lañu ñu bëgg c'est-à-dire loolu moom mooy politique su le plan économique euh, aussi man bi ma ñëwee fii premier rencontre yu ma am fii notamment au niveau de la présidence li ñu ma njëkk a wax ci affaire tourisme religieux te ki ma ko doon wax c'était le conseil économique bu président te booba mi xam naa nu ma ko déggee ci ay wax donc mu ngi doon xalaat ci affaire caravane pense que à sax wax naa ak daayira yi fi nekk du ma leen di njëkk a woo ma ne leen ah man de vraiment ci ni ma déggee ñi ñi di wax ni bëgguma ñeneen di am lu ñuy jël ci euh, yoon bi lu ëpp yéen li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a fi toogal euh, kilifewu Tuubaa yi fii ñu leen di bàyyi ci ginnaaw tax na euh, su ma sañoon daal vraiment yéen ñëpp ngeen fexe ba booloo jéem a gën a liggéey ba nga xam ni daal lu euh, luñ ci am aussi daal bu ko ci keneen di am tamit duñ leen ci ëppale donc ñoom aussi euh, ñu def ko euh, xëy na am na ay yenn yoo xam ni matagul mais incha allah wax naa leen ko ñoom ñëpp nee naa leen ni bu dul tey aussi loolu moom dëgg fa yàlla xam naa ni fa la ñuy jëm fa la ñuy jëm ndaxte liggéey bi yéen a koy sumb wante du ci yéen la yem. voilà ñu koy jariñoo xëy na sax boo demee juddooguñu donc vraiment sant yàlla et puis di euh, delluwaat aussi di euh, sant ak gërëm kilifa yi nekk Touba ndaxte lii aussi bu mënee am xëy na ndigal euh, moom moo tax te loolu aussi vraiment kenn munu cee génne sunu kilifa muy sëñ Muntaxa Mbàkke na fi yàgg te wér moom mi nga xam ni keroog aussi malgré coono yeeg malgré euh, xat-xat yi fexe na ba recevoir ñii seen kilifa bu ñu yónnee parce que man mii sa bopp dama maa ngi leen di wax bu ñuy ñëw fii pour seen visa yi waroon a ànd ak kii ma ne leen mais nit kat du xaar ba ni suba la rek nga ne da ngay ñëw dam surtout que bu fekkee na ngay fekk ay kilifa te li yàlla def heureusement lépp euh, rafet donc euh, mu teeru leen boo xam man gis naa vidéo yi gis cadeau yi loolu aussi nekk teraanga bi xam ni moom mooy mëndargal Euh, Sénégal yëpp donc ñoom aussi waa Gabon ñu leen di remercier parce que maa ngi koy wax sànq euh, kilifa yëpp la koo ci gis Sénégal donc da ngay gis ni mbégte la ñuy ànd le président de la République euh, en premier le ministre des Affaires étrangères Mama Sall le disait tout à l'heure qui presque depuis six mois à chaque fois qu'on donc il me parle de l'événement La dernière fois qu'il m'a reçu, c'était il deux semaines avant. Et donc, euh, il m'avait dit toutes les dispositions que le président de la République avait déjà prises à son niveau suite à la rencontre que vous aviez eue euh, au Méridien. Euh, me les a rappelées en me disant que il fallait que euh, euh, même mêmes qu'ils en tout cas les démarches tendant à préciser les choix par rapport comme j'étais pas là donc je me suis dit que bon, après, quand vous aurez le temps, on en discutera. Parce que aussi, y a aussi peut-être d'autres éléments à prendre en Mais cette disponibilité montre aussi à leur égard l'intérêt qu'ils trouvent par rapport à la caravane de Mayomba. C'est-à-dire que par-delà la dimension, disons, euh, religieuse, il y a une dimension économique forte et qui les intéresse au premier point. Euh, donc, euh, on va travailler là-dessus avec eux et euh, avec euh, les membres donc de l'ONG, mais en même temps aussi avec toute la communauté mouride. Parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que si cette initiative donc, est de vous, elle concerne tous les gens qui sont là. par de là même les mourir tous les Sénégalais. Donc il faut aussi aller dans une perspective, disons, de, euh, euh, de réunification. de tout le monde. je sais que Cheikh et Mamassa et peut-être Cheikh Ouna savent de quoi je parle, euh, parce que euh, il y a vraiment, euh, je sais, parfois quelques malentendus, mais l'essentiel est qu'à chaque fois, moi, que je discute avec euh, une partie ou une autre, c'est toujours la même chose qu'on me dit. Donc, je dis qu'il n'y a pas de problème. Il que juste, donc, euh, un manque peut-être de discussion. laa là, on va nous aussi continuer avec Diaga, avec le colonel aussi, à travailler pour que tout soit mis. Parce que si on est unis, on va avoir beaucoup plus de résultats. Voilà. Et personne n'a intérêt à ce que les gens là soient de ce côté et les autres l'autre. Hmm. Euh, surtout si yow nu Serigne Touba. donc daal vraiment maa ngi euh, delluwaat di leen gërëm di leen sant euh, defe naa suba la ngeen di delluwaat vraiment di leen ñaanal aussi. yal leen yàlla delloo si jàmm wala demee ñi ngeen fay fekk aussi fekk leen si jàmm ñaan yi ñu ñaan fii aussi ak euh, vraiment lépp lu luñ ci daj comme coono yàlla daf ko mu nekk ay ngëneel di barke si ñun si njaboot gi si Sénégal si Gabon aussi parce que euh, ñoom aussi kenn mënu leen doyal ci sant vraiment dafal nañu aussi ay teraanga yu bëri man lu lay wax keroog nee naa ni je toujours fier parce que fu ñu dem dañ naan ah Sénégal dañuy presque dañuy teg de côté te ñu nekk suñu ay yeneen mbokk ñoo fi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo leen gën a jege parce que y a des gens qui sont des états qui sont voisins et tout mais à chaque fois vraiment cër bu ñuy jox ñëpp dañ koy remaat donc loolu aussi ñoom tamit il ñu sant leen xam naa ne nag xëy na ñaanu kilifa yi fi jaar <laughs> Sénégal yi moom moo gën a yokk loolu mais <laughs> vraiment donc ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu bu baax sëñ bi vraiment jërëjëf ci déplacement bi merci beaucoup au nom de tous les membres de l'ambassade euh, et de toute la communauté parce que li ngeen def ni deful leen ko rek waa caravane bi mais sénégalais yi nekk fii yëpp ngeen ko defal ñëpp vraiment ñëw ci bëgg ñëpp ñoo ci am fierté jërëjëf boo demee aussi nga gën a feddaleel ñu sunu ziar euh, kilifa gi euh, sëñ Muntaxa vraiment ñu ngi gën a di ko feddale aussi sunu cofeel sunu mbégte ak sunu vraiment kontaan ci liggéey bu rëy bu nga xam ne mi ngi koy liggéey te ñëpp vraiment di ko ci nam jërëjëf man xaarani maa xaaba an kulli wali lii xaada ahla badrin usuuda man saxsaxa alwaasiya walxasuuda يقودني حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لخير الله فيما ينبى ما ساء قلبي وأهل جنبا لله قد وصلت عند قلبا وسالني عما يدر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي حيل المدحور كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي حيل المدحور علمني العليم عند الساعه dal من السخاوة ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإسراء من قادني إليه بالإدراك ناديته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جيولي ناديته bi yaa nasiiru yaa wali kafaytani ibliisa inda jeewali muy tawfeex ju rëy